أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ۖ وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب وزر خيار الحلماء وصالحين واخدمهم لله جل كل حين واذر خيار العلماء والصالحين واخدمهم لله جل كل حين واطلب ضحاءهم ومنهم أبدا كن ذا تبرك فتزداد الهدى فإنما إجلال حال من عمل ijlaalu rabbil xardi fi ma xusnu xil ara aw jabal ashyaai xaqa muhallamin wa aakadahu xaqan ala kulli muslimi ara aw jabal ashyaai xaqa muallimin wa aakadahu xaqan ala kulli muslimi faxad xaqa ay yuhda ilayhi karaamatan bi taalifi xarfin waahidin alfi dirhami فحد حق أن يهدى إليه كرامة بتعليف fi واحد ألف درهم mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaara di am mbégte kontaan bu baax a baax leen yëgal bis bi nga xam ne moom na dëgmal muy bisub siyaara ñu nga ànd ak daara ji yëpp daarul maarif al islaam yi ñoo ngi ciy woo bépp ndongo boo xam ne mën ngaa jaar si daar ji ak noo ci mën a jaare ñu ngi nga xam ne bis bi dëgmal muy aral ba le 23 ci weeru Ramadan dëppog 3 avril bii di ñëw ñu dëgmal ko incha allah ñu ngi ci woo bépp ndongo boo xam ne mën ngaa jaar ci Daaru Maarif di leen xamal ne moom siyaar bi nga xam ne moom lañ jàpp chaque année bii nekk 15e édition ñu war koo amalee fexe kër Sëriñ As Daaru Minan ku ñu ko bàyyi ngeen bàyyi lu xel yooyu ñëpp képp ko xam yaa ngi ñëw nga teel a ñëw nañ ko daal defee nañ koy defee ñu ngi si woo ñëpp bàyyiwuñ kenn góor ak jigéen mag ak ndaw di si woo parents d'élèves yëpp. te xam ne bis bii woon benn bis bu ko kawee woon benn bis bu ko sut woon benn bis bu ngeen fonk ci bis bi kon képp ku maam fonk nga ñu da nga yëg ñu ngi la ciy woo sàkk sa bu baax a baax ndaxte bis bi niñ koy waa daal làmboo lu bare bari ndax ci weer koor nañ koy def waaye mu nekk ci fukki fan yi mujj yi nga xam ne maanaam ngeen lu bëree bëree bëri ngi ci te it ngërëmul Sëriñ Tuubaa mi ngi ci ndaxte Sëriñ Tuubaa dañoo digal. li si yàlla doon jàng léegi mu ne wa surqi yàlla xulama wa saalihin wax di hum lillahi jalla kulli ayn ku ne xam na léegi liggéey amatul amatul tool yu ñu dem di fa bay wala kenn taxanul kenn léegi lu ñu maa def mooy siyaare kon nag siyaar bi ñu ngi koy def di ci woo ànd ndongo yëpp di ci woo mbokk jullit yëpp ak képp koo xam ne xam-xam ñoroon rek ñu ngi la ciy woo bu ko defee yéen waa daara ñu ngeen bàyyi kenn xel bu baax a baax bu bés ñëpp ñu ngeen sàkku seen teewaay ngeen teel a yàlla ngeen bàyyi xel bu baax baax àrraba lay doon le 23 ci weer Ramadan trois avril ñu ngi ci yoo ñëpp bàyyi wuñ kenn góor ak jigéen mag ndaw. kon mbokk julli di mbokk taalibe yi ñu ngi leen di siyaar bu baax di leen màggal di leen jox seen waay di sàkku ci yéen ñaan di leen ñaanal baax a baax ci weeru tedd yi nga xam ne ci lañ nekk damay weer woo xam ne bokk na ci weer yi gën ci weer yi weer la woo xam ne lépp lu baax ci la wàcc ndax alxuraan ci la wàcc. te du weer la boo xam ne leelatu xadar ci biir weer wi la amee kon weer woowu ngëneel wi moom dong moo ko kon nag ginnaaw ba loolu jallee it ñu ngi eh, feddaliwaat siyaar bu baax a baax a baax baax li ñu doon wax rek sanq siyaar na dafa doon loo xam ne buñ doon mun mënta ñàkk ci ki nga xam ne moo la jàngal ndax li mu wax sànq rek ah, faxadu xoqa ay yuxda ilay karamatan bi taalim xarfi waahidin alfi dirhami junni dërëm la wax nga jox ki nga xam ne moo la xamal wenn xaraf te yónni wa sallam mu ne man xaraf ka foofu mawlaak wenn la ko xamal rek sab sëriñ la waaye bu doon sax wax xaraf sax waaye siyaare donte jàngaluñu sax siyaare ko day ko war ñu ko te addiye jox ko koo xam ne yelloon na ko dañuy wax ne moo gën si nga jox nit aw sarax te addiye dafa doon loo xamante ne ki nga jox mu mate ko waxuma la waaye tiyaaba ji ci nekk rek waaye li nga ci nar a amee fay ak ëllëg gi rek jar ko waxuma laa nag koo xam ne aw xaraf la la xamal bu la jàngalu tamit moo jàng ki jàngal kon kooku mënuñ koo pay waxuñu rek jàngal ki la jàngal waaye say waajur kooku bu ñu amoon di ko joxit du tax ñu mën ko fay mukk ndax dana waxaddami ustaas yi xalaa xaqi waldi wa in kaana li waldi fil birri wa haza min rabbi wa ruuxi jawharun wa haza min rabbi jismi wa ma loo sadaq daa wax ne jiital naa sama xaq ustaas ci xaqi sama ñaari waajur donte samay waajur nag ñu am ñëwante la ci man ak cofeel ci man ndax li ko waral mooy ustaas bi ci boppam moom ruux gi la yar te ruux mooy wurus wi te ruux ku na a jëme nit ki àggale ko sa borom subhaanahu tabaaraka wa taala te ko na xamante ne bu dee ñaari waajur yi nag la ñuy lijjanti ci jëm ji jëm jëmmi doom ji mooy bu raflee ñu jox ko mu koddaayu bu xiifee ñu jox ko bu maree ñu jox ko wante nee na loolu noonu mooy jàppale mooy xur wi te ko na xamante ne kon wurus aw xuroo ko ëpp doole kon addiye ji ñaar ñuy joxe nekkul addiye joo xamante ne si maanaam joxe gi buñ doon misaal day day doon lu war ndax ku la xamal moom mënu kaa fay moo tax ndax daa wax ne. it xiila inna nafa man taxallama niita bi idlaali suyuxil xulama njëriñ yi kiy jàng dañ ko aj ci kem ni màggale sëriñam ndax fay ni ma idlaalu xaalimil xamil idlaalu rabbil xarsi fi maa xad noxil ki nga xamante ko nga di ko siyaare ak di ko liggéey loo man loolu day wax ne sax lig màggal ko mi ngi mel ne nga màggal suñu borom tabaaraka wa taala ndax borom xam-xam yi ci boppam ñoo doon yonente yi te kon xamees na ne ab yonente mooy dox mission si borom subhanahu tabaraka wa taala te kon a xamante ne ne borom xam-xam yi mooy mottali woote bi yónente yi kon misaal maa ngi noonu ndax innama yaxsallah min ibaadihi xulmaa ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla mooy borom xam-xam yi te ki ñu jox addiye ji xam-xam rek waaye ragal yàlla gi rek jox dara jar na ñu jël seen addiye jox ko ñu ñaan baax a baax suñu borom yàggal ko fi ak bépp jullit boo xamante ne si ñi ngi ci ah, ànd ci woote bi te woote la boo xamante ne si képp ku ci def sa ñaq rek incha allah da nga ko gis incha allah lépp loo xamante ne aju na ci bis rek ñu ñoo ko war a jagal te muy liggéey ba fa ji mag lépp loo xamante ne si ay liggéey baag xidma baag yooyu yëpp nga xam ne lépp daal dañuy jàpp ne ci ñun ñi ñoo ko war a jagal te kon na xamee ne li doon na loo xamante ne si boo ko defee incha allah taala doo ko mës a rëccu da ngay gis njëriñ la rek ba faaw kon siyaare bi nag mi ngi noonu ñi xam ne it ne lépp loo xamante ne si def nañ ko ci bis ba day doon li ñuy jëriñ rek waaye du doon li ñuy li ñu li ñu kii daal njariñ la boo xam ne ba ba faaw day day sax kon daal loolu daal moo nekkoon kàddu yi te xam naa ki doon wax nag mooy ki gën a gàtt at ci almutalabuna yi waaye nag day loo xam ne ndigal la te ndigal moom bu jógee jëfee rek moo ci topp tey ñi xam ne ñi xam daal loolu moo doon kàddu yi boo xam ne lu ci jub ñi xam ne yansurullah benn sirri la yansuru may sa moo ko waral bu amee lu ci dëgg nag ñi ne waxal xal insaan moo ko waral kon waaleykum salaam wa jox kàddu yi seen xaam jaam mu matal liggéey min alshaytaani fi kulli mawdiin wa fi awtaani bismi lilahi kfini l akdaar yallaahu safi lbaqaa bihi li fika yallaahu alhamdulillahi wa salla abada allazi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wa ali wa sahbihi tawina walil wali laqin lisani waxlulat milahu xoqat wajcalu dakiran wa shakiran abad wajcal kalaami rachida wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida barke borom Tuba mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di siyaare siyaar boo xam te ne bii foo takk màggaay bi weesu na ko di ci jiital ki nga xam ne mooy chaamil fadila cheikh mohamadinil muntaqa ayadahu llah wa nasarah wa xamaah wa afisahu bi jaahi cheikhna ahmad al qadim di ci teg suñu kilifa gi nga xam te ne bii mooy kilifa jotaay bii di sëñ alxaaji mbàkke jaxate nga xam ne moo waral siyaar bii ñu war amal nii di jaajëfal mbokk yi nga xam ne bii ñoo njëkk jël kaddu ci ki nga xamante ne moo ubbi jataay bi euh, di ci alxuraan ñu karim ji tedd ji ci aayaat yi nga xamante ne bi am solo la da ci teg suñ seexuna ba tey mi nga xamante ne bi moo yenn indi ji yenn abyaat yi nga xamante ne bi sëñ bi da ciy soññi ci wàllu siyaara sëñ saalix mbay ba tey kazalika ak sëñ as saaxo di leen jaajëfal bu baax a baax di rafetlu seen i xanaa di sof ci seeni i kàddu rek di wax ne lii li ñu li waral jataay bi mooy lenn niñ ko waxee mooy siyaar boo xamante ne bii dañ ko war a amal mu nekk rabdul jamil delloo njekk yemee ko ci sëriñ bu tedd bii nga xam ne mooy say alxaaji Mbàkke jaxate di ñaan suñu borom subhanahu wa taala di ko dagaan mu gën ko fee yàggal lool te gën koo wéral moo ko njabootam ak taalibe yi nga xamante ne bii ñoo ànd ak moom liggéey bi te suñu borom gën koo defal ay ndam bi jaaxi sana amadul xadim siyaar bi nag ni ko mbokk yi waxee mu nekk loo xam ne lu am solo la li tax mu am solo mooy suñu borom bi mu ñu bindee iniñ ci kaw suuf dafa wax ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun nit ak jëlil tax mu bind leen pour ñu jaamu ma jaamu yàlla googu nag mënut am ci lu xam ndax dafa waxoon ne taarifuni qabla an taabuduni fa ilam taarifuni fa kayfa taabuduni na ngeen ma xam bala ngeen ma xamul na ngeen may jaamoo Sëriñ Tuubaa tam waxaat ñi ne wa man tajarrada li taatil jalil qabla taallumin fa xumrun la nabil képp koo xam ne futteeku jaamu suñu subhanahu wa taala tegu ko cim njàng ab dof boo xamante ne bii amul euh, euh, amul kon nag ki nga xamante ne bii moo dimbale ba sa jaamu yàlla googu nga mën koo matale te teg ci lu leer naññi kookee yaakaar naa loo ko mën a jëbal amoo ak fayam ta Serigne Touba mii ñu yaakaar tam dëkkam bii ba mu koy sos la taxoon mu sos ko mooy lii li Serigne bi nekk kon kenn defut ci dëkk bi lu gën a màgg li Serigne bi taxawee muy jàngale xam-xam te lii lu tax ñëpp war see wuy si ndax suñu borom dafa waxoon ci alxuraan ne yaa ayyuha alladina amanu stajibu lillahi wala rasuli isa daakum lima yuhyikum te lii moom jàpp naa ne amul lu ñu gën a mën a dundal ci lii nii woote bi nii kon nag lépp lu ci waaye doon def na ci gën a farlu bii nag mooy fukkeelu yoon ak juróom ñu koy taxawal ñu koy ni ko euh, sëñ Saali waxee ñu koy amale ci kër sëñ As Jaxate mi nan mu war a tombeeg àllarba jii ñu jëm incha allah toole ak ñetti fan ci weeru euh, avril di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru Ramadan ñu ciy soññi ñëpp nag te xam ne lépp lu ci waay def na la leer ne maanaam ab denc la boo xam ne duutu yàq ba faaw ndax ki ñu koy defal moom jariñu na ba noppi defaru na ba noppi kon ñun ñoo bëgg a ñu ñoo bëgg a jariñu kon luñ ci mën def rek nañ ci gën taxaw bu baax a baax te xam ne kat la sëñ bi waxoon wala tasal ilayhi saa ihdaayi bi lahu bima bima sarata min ataay walaw xalilan min tisaali ma warat li annahu tazidu xubba man yawat bul dañ mukk di jox sa sëriñ addiya saa jamono jot jot foo mën a toll ci kem sa kàttan daaneel li nga koy jox lu mu néew néew bu ko ndax loolu kat dafa nekk loo xamante ne bii day yokk li nga xamante ne mooy ak cofeel ndax sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne tahaadu tahaabu dee leen di joxante ay addiya ndax seen cofeel gën a bari te tam euh, jàng nañ ko léegi benn saar dafa waxoon uxaddimu ustaasi ala xaqi walidi wa in kaani li fil walidi birru wa lutuf maanaam sama aqi ki may jàngal moom laay jëlee ci aq sama waajur te xoole waajur ni mu foore suñu borom subhanahu wa taala dem ci ayaat yu bari wa abudullah wala tushriku bi seen wal waalidayni ihsana kon yàlla bi mu digalee ñu jaamu ko la comme ci teg mooy waajur wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wal waalidayni ihsana kon ñu dem ba aqi waajur sax maanaam aqi jàngalekat bi moo a foor kon jàngalekat bi kenn mënu koo fay tanam mu waxaat ne ba tey fa xad xaq faqad xaq ay yuhda ilayhi karamatan bi taalimi arfin wahidin alfu dirhami foogu waxut fay de maanaam karamatan maanaam terale jàngalekat bi yaayoo ñuy terale ko benn arfu nekk lettre bu nekk exemple bu ne buñ buñ ne woon alif lam mim alif gi rek maanaam yaayoo ne ci ñu terale ko ci li nga xam te ne bii mooy junniy dërëm waxuñ ñu fay ko ci de kon fay ga moom yàlla rek moo xam nu mu toll kon kooku yaakaar lu ko waay defal maanaam sa bopp nga koy defal waaye defaloo ko ko moom kon nag ñu gën cee farlu bu baax a baax te gën cee góorgóorlu te xam ne euh, maanaam siyaare borom xam-xam day nekk la loo xam te ne bii la ko lu am solo la comme ni ni ko jàngee ci bayt yi weesu léegi wa zur xiyaar al ulama wa saalihin waxdimhumoo lillahi jalla kulli ayn na ngay siyaare ji borom xam-xam suñu tubaab ñu ko digal ak gaa yu baax yi te nga te nga nag di saxoo di leen defal xidma mu di leen liggéeyal saa su ne kon app àpp dafa nekk loo xam te ne kulli ayn la jamono ji nekk da koy def uminu abada kun saa tabaru saa tabarukin fatas daadal huda na ngay sàkku seen ñaan tey barkeelu ci ñoom saa ne kon yaakaar naa lii nii def nii ab barkeelu la waaye nekkul loo xamante ni bi ak fay la wala sax radul jamil biñ ko radul jalil euh, jamil biñ ko tuñ ko tudde sax yaakaar naa matu ko waaye lii day nekk loo xam lu ñuy barkeeloo ci sëriñ bi rek ngir bëgg a moom kon nag dañ koy barkeeloo ci ngir lan li li tas daada hudaana ngir suñu suñu njub mën a yokk saa su ne comme ni ko sëriñ waxee dafa nekk loo xamante ne bii loo am solo la ndax une chanson day dafa day wax ne ci hadis ne inna allaha taala xalaqa eh, taxtal xarsi madinatan maktuban ala babiha man zaara al ulama fa ka annama zaara al anbiya eh, dafa xam ne maanaam suñu borom subhanahu wa taala dafa dafa bind ca ron aras benn dëkk bu mag dëkk ba nag ñu bind ca porte bi nga xamante ne bi mooy porte d'entrée bi mooy bunt bi ngay duggee dañ faa bunt ne dañ faa bind ne képp ku siyaare ji borom xam-xam yaa ku siyaare ji ay yonent yéen a te yaakaar na loolu dana feeñaat ci waxi sëñ sëriñ bi ndax dana waxoon ne fa innama idlaalu aalimin amil idlaalu rabbil arsi fii maa qad nuqil màggal borom xam-xam boo xam ne day jëfe xam-xamam kooku mooy màggal si borom subhanahu wa kii ñi nga xam te moom lañ fas yéene siyaare ji amul sikk sàkke amul werante ne maanaam borom xam-xam boo xam ne buy jëfe xam-xamam la ci zaahir ak ci baatin nag kon kooko yaakaar naa ku jóg jëm si moom maanaam loolu tawfeex si borom la ndax bari nañu ko bëgg te mënuñu ko am kon ku yàlla dimbale ba nga bokk ci kon loola wan ko sant si borom baax baax te gën cee farlu bu baax a baax loo ci doon def tam nga yokk ko te xam ne maanaam euh, luñ ci mën a def fii ba ay milliards maanaam defuñ dara te tam luñ ci def lu nekk tam denc la bu dul yàq ba faw kon nag nit ku nekk comme que sa alal day la laaj fan la jógee ak fan lay dugg fexeel ba maanaam dugal ko fii moom dafa nekk loo xam te lu wér la loo xam te ne ëllëg yobal xiyaam lu la suñu borom di fay fay la bi xayri xisaab te nag omaa an faxtu mi seen foo yoxul foo waxee rasiqin lépp lu ngeen dépensé te yàlla tax yàlla moo koy remplacé tax yàlla moo dàq wërsëgale ñëpp kon lii daal nekk na loo xam te ne bii lu ci waay doon def na ko gën a yokk bu baax baax a baax ndax dañuy wax ne euh, juluusu saatin inda al ulama ahabu ila allahi min alfi min euh, min min ibadati alfi sanna dañuy wax ne amum jet am ak jetaay benn borom xam-xam ci benn waxtu nga toog nga toog benn waxtu nga toog ci borom xam-xam moo gën jaamu yàlla junniy at xoole jaamu yàlla ni foore kon yaakaar naa kon borom xam-xam léppam njariñ la kon nag ku yàlla dimbale ba nga mën a fekk euh, lii nii mën a fab sa alal def ci xamal na am nga tawfeex si borom gën cee góorgóorlu baax taram loolu lool sax buñ demee ci bëti yërmande yi ñu sëriñ bi xool rek suñu yokkutale ci ci ba faaw comme nag suñu waxoon fanasatul obbi min as-sayqi ila muridihi hiya al masaya wal ula maanaam xoolu cofeel boo xamante ne da bàyyi koo ci ab sëriñ jëm ci ab taalibeem loolee kat ay ngëneeli kese kese la ako kawe te nag euh, wa in takun lil ilmi sa taallumi fabtaqi lillahi ridal muallimi bu fekkente ne da ngay sàkku xam-xam te bëgg am njariñoo xam-xam del sàkku ngërëmal ki nga xamante ne bi moo lay jàngal te ne boo ko amee am nga lépp te ngërëmul ki lay ki lay jàngal rawatina na mu nekk jàngalekat boo xamante ne bii ñëpp seet nañ ak ragal yàllaam ak joxam yàlla kookee bu la gërëmee yàlla gërëm la te ku yàlla gërëm sa lépp faju ndax si borom moo waxoon ci alquran ne wa ridwaanu min allahi akbaru dalika wal fawzul azim kon koo xas am ñàkkatoo dara kon nag wa kulla daa seexeeka kal mamluuki tablux bihi darajatal muluki loo ko ne yaakaar naa sama classe gi nga xam ne ñoo nekk ci barab bi di jàng ñoo tax ñuy wax war nañoo xam ne ñuy comporté woo bu ñuy jàng nañ nekk ànd ak sëriñ bi jox ko ay ab yar ak teggin yu mat sëkk ba nga xam ne dañuy mel ne ay jaam yuñ moom ndax ci loolu ci la ñuy mën a nekk ay muluk ay buur tanam waala bi anna nafa la yunaalu illa bi illaalin ala ma qaalu maanaam njariñ tam yow mi jàng bala ko mën a am mi ngi nekk ci kéemtalaay na ngay màggalee ki nga xam ne moo lay jàngal bi xadir ka saxika tafuus euh, bi maa turidu wa bihil yumna taons maanaam ci kem na ngay màggali sab sëriñ ci ngay mën a amee ndam ci ngay texe ci la nga bëgg ci ngay amee la nga bëgg te tam ci loolu tam ci ngay amee li nga xam mooy barke xam-xam ndax bariwaane ku jàng ba eggal te gisul ku ko laaj benn masal la ko waral mooy ñàkk barke te la ko xaj mooy xëy na nam doon doxalee ka doon jàngale war ma je de waroon seen diggante amutoon nam waroon comporté wu diggante ba tamit loolu matul kon a góorgóorlu ba tey ci taxawaay a baax fa kullu man lam yurid sayqahu fala yenaalu fii talmisihi a sàkku ngërëmul ki nga xamante jàngal koo kee day jàng ba sonn waaye du am li nga xamante ne moom doon mébét ak li mu doon yaakaar ci li nga xamante bi moom doon jàng kon nag nañ gën a góorgóorluwaat bu baax a baax te xam ne kii ñu yàlla boole laal maanaam taw tawféex la joo xam te ne tawféex suñu borom ji ñu si borom jagleel la euh, nañ ci gën a góorgóorluwaat lu ñu ci doon def ñu yokk ko bu doon def junni nañ def fukki junni bu ñu fukki junni nañ def million bu ñu def million nañ def milliard euh, ci loo xam ne ndax suñ njariñ kese la luñ ci gën a feeñ rek gën a jariñu kon nañ ci gën a euh, taxaw bu baax a baax gën cee góorgóorlu te xam ne suñ jariñu tey la tey la ak ëllëg te nag sëñ bi waxee woon si as léegi it qiila inna fa man taallama nii tam illa li suyuxul ulama njëriñ lu kiy sàkku xam-xam ñi ngi ko aj ci li nga xam ne kem nañuy màggale li nga xam te ne mu borom xam-xam yi kon nag nañ gën a góorgóorlu baax baax di gën a eh, kii eh, amat sawqi dafa waxoon ne eh, qum lil muallimi wa fihi tabjila kaada al muallimi an yakuna rasula maanaam yow jàngkat bi saa soo séenee ki lay jàngal na nga jug màggal ko ndaxte kat moom jàngalekat bi kat tuuti kon mu nekk ab yonent maanaam sax daanaka ab yonante la ndax maanaam ku nekk ña nga jiita ña ña nga jiita di jàllale si ñoom mission si borom ñooy day nekk da ngay nekk ndawul si borom ci ñoom kon nag jàngalekat bi ab yonante kon kooku nag maanaam gëdd boobu ma am yaakaar naa lu ko waay defal suñu borom nga ko defal subhanahu wa taala kon nag nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax gën cee taxaw tey gën koo ñaanal si borom gën koo kàttanal gën koo wéral ak njabootam gi nga xam ne ñoo ànd moom liggéey bi ñëpp waaw moo xam ay doomi boppam lañ moo xam ay taalibe lañ moo xam ñu nekk ci barab bi ñëpp rek ak talaami si nga xam ne ñoo nekk ci jaraay di fi jàng li tax ñu dikk fii nii nga xam la ko suñu Fallu Mbàkke waxoon ba mu ba mu koy jox daara ci 1963 ne ko soob na yàlla lu fay jàng dana barkeel loolee mu ñun ñun xam nañ te dara waaw ndax fii ay kàngam ñoo fi jaar ay kàngam ñoo fi jaar ay yaakaar naa eh, doy na sëkk ma ma tudd ci ku mel ne eh, sëñ Mamour Mbacke eh, ibnu Saoun Fadal yàlla ko yàlla dolli yërmande ak ak leer nga xam te ne bi moo nekkoon jëwriñu daara ji ak lu mel ne comme Cheikh sëñ Mbacke Abdourahmane ak ay Cheikh Mokhtar Kaak yu demee noonu ñëpp rek kon ñoo ñëpp rek ay référence lañ yoo xam te ne bi xoolee ci ñoom war ñoo xam ne fii nekk na barab bu barkeel boo xam te ne bii lu fi waay sàkk te teg ko ci ixlaas yàlla dana ci defal ndam te tam ndam loolee tam da lay defal nafxu ndax lépp lu waaye di sàkku te amoo ci njariñ loolee zéro kon yàlla na yàlla gën a defal tawfeex ak ndam lii ñu yàgg koo taxawee te yàlla defal ñu ci ay ndam ak ay xéewal yaatoo yaatu te tam lépp lu ci waaye def déwén yàlla nañu si moroon ba nga xamante ne bii la mbooloo mépp di ko di def di di ko joxe yàlla nañu yàlla dimbal ba kenn ku nekk ci ñun la mboolee may joxe nga am kàttan mën koo joxe te am xolub joxe ko te dëpp wax na nag lépp lépp lépp lu dëng ci wax gàtt xel la ak suñu gàtt àlliwa waaye itam li jub tam ñoo xam ne mbaaxu la mi ngi nekk bi awnillahi wa nasratihi kon nag ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa defal ñu ndam gën a yàggal te gën koo sàmm ko te aar ko ak képp ko ànd ak moom ci liggéey bii talaame si yi ñoo nekk ci barab bi tam di jàngi fii li ñuy sàkku si yàlla suñu borom defal tam ànd ak kawe njort te barke bu yaatu àllar bi ñu jëm incha allah war a tombeeg ñaar fukki fan ak ñett ci weer ramadan di la toll tolloog le 3 avril ci weer 3 2024 waaw ñëpp nañ maasé teew te teewal li nga xam ne mooy hadaaya yi ndax ci la suñu njariñ nekk wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf